li Abdou Karim ngay lañu wax luñu waxul ñun waxuñu ko des waxé xonk ñu ne cur bu ñu les gens qui waaw ñun ay talibé lañu Abdou Karim ngay di suñu mbokk suñu frère suñu camarade on a rendu un vibrant hommage à Abdou Karim son épouse et sa famille fuñu wax xonk ñu ci

lii wala lii moo jur feebaru Abdou Karim Gueye foog ñu ñaaxante suñu biir bu yóbboo kuy lekk nga xam li ngay lekk bu yóbboo kuy naan nga xam li ngay naan bu yóbboo fooy lekk nga xool ndax foofu war nga faa lekkee ndaxte ñiñ ko sékkal seen bakkan lañ ci teg waxuma ne lii la wala lii la waaye mbir bu amee dañ ciy def tamit ay jàngat ñaaw njort ci ne ah waaw lii ak lii ak lii mën na am comme ni mu amee woon ci ñeneen ak ñeneen ak ñeneen damay fàttali ne ñu ngi ci réew mi nga xam ne Omar Blondin Diop dañoo xëy fekk ko mu dee euh, ca gore ñu ne dafa xaru ak yeneen ak yeneen donc aji bëgg réew yi patriotes yi résistants yi combattants yi ah gën leen prudent gën leen vigilant ci li ngeen di lekk ci li ngeen di naan waaw bu leen mel ni man bëgg naa suppu kànja loolu waaye bu leen ku leen invité suppu kànja ngeen dem lekk suppu kànja waaw ndaxte ce pays là askanu Sénégal daf leen soxla combat bi des combat pour tinki Sénégal tinki Afrique des na te dafa soxla ay ouvriers dafa soxla ay combattants donc arlène, sen seen bopp aar seen na ci moytu moytu moytu